waxtaan waxtaan woo moo jur boo dikkee Saalum Tëriñ soo wax soo woo mu tari alxuraan soo woo góor mu tari alxuraan soo woo jigéen mu tari alxuraan kon ci diine ak aada dialogue national musta mën a ñàkk depuis 1549 à notre jour ku ma sa jiitam réew boo demee ba réew mi yàlla nu borom dogal kenn ku ci nekk wuuteeg sama morom gis-gis dañ daa daje bu ñu dajee mën a waxtaan tëral solution ngir mën a tëral loo xam ne li ca la ñuy réew ma dem ndax duñu ay ennemi ay adversaire rek lañu te wax naa la ne la Alboury Seyne bu xeex na ak ki nga xam ni kii mooy mbabb basin te mam maam Alboury bu mi ngi denc ma jigéen basin mi nga xam ne moom mbabb basin ñoo bokk ndey ak baay waaye taxutoon keroog jolof dara yàqu ndax ba xeex ba jeexee dañoo dajawaat bokk ndey bokk baay ni kenn ku ci da kon sunu rebe ba borom dogal ñu wute gis-gis yalla dogal daje na ko kenn ku ne wane sa ngar mi wane sa njàmbaar léegi nag nanu àndaat ngir jolof mën a mel ni mu bëgg moo am jolof moo am kajoor moo am siin moo am saalum moo am waalo moo am jolof ba ci dëkk bii nu nekk nga xam ni jëli ngoone mbeng mi nga xam ni mooy maami kuy grand serigne tey def na dialogue national am réew surtout muy réew mi nga xam ni mooy Sénégal tey pétrole feeñ fi gaz feeñ fi lépp feeñ fi ci époque président Macky Sall mu jiite ko fukki at ñaar waat ni incha allah du ma doon candidat waaye dama bëgg nu daje nun Sénégalais yi bëgg réew mi waxtaan bu nu waxtaanee xool naka la ñuy tërale ku yàlla tek si réew mi sa loxo bu ëllëgee nga man koo jiite. Mamadou Dia def na dialogue national en 1959 à Saint-Louis Ngalandou def na dialogue en 60 1945 à Tëngéej Blaise Diagne def na dialogue national Baye Mamadou Dia def na dialogue national Baye Léopold Sédar Senghor def na dialogue national baay Abdou Diouf def na dialogue national bi ñu ko joxee ndax bi ko président Senghor jëlee tànn ko en tan que premier ministre dafa def dialogue national dafa woo diine ji woo aada waxtaan ak ñoom ne leen damaa bëgg nu waxtaane réew mi waxtaan kii doon son premier ministre nañ ko fi tegandigum suñ ko fi tegee mu doxal bu ëllëgee ñu dem élection ko yàlla jox réew mi nga gañe ko président Abdoulaye Wade def na dialogue national ak président Diouf kon bu ñu demee tey ba ki woote dialogue national ñëw jamono après indépendance liggéey liggéey bu rëy bi mu liggéey ci Sénégal ndax président Macky Sall loo bañ bañ leen ni ko gudd ngay nopp yoon amul. état invité ma

benn président bu fa nekkoon am nationalité Chili ak nationalité Japon xuma ban dëkk mais bi mu defee njombe daw dugg dëkk boobu dañ dañ ñu seen siyaar la duñ ko joxe boo amee beneen boo amee double nationalité fii tey def njombe ci réew mi daw dugg dem Paris wala nga daw dem Suisse waa Suisse bu la neexee duñ la bàyyi ku war a bëgg a nekk président fii da ngay nekk exclusivité exclusivement sénégalais

Je abonné et je prends à à témoin à 88 la ñu invitation d'un chef d'état le président Abdou parce que si ceew dafa code électoral Ce c'est pas fiable effectivement pour ne citer que cet exemple la présentation de la pièce d'identité n'était pas obligatoire quatre électeurs regardez, nga Les quatre électeurs, photo masalan man man naa dugal woote su ma paree ma abal ko sama jarbaat ngoone mu woote su ngoone paree jox ko xar jox ko xaritam kooku paree jox ko seen waa koñ lu ma dix vingt trente personnes daan nañu woote ci benn carte loolu moo fi amoon. moo tax bu ngoonee bu ñu daan joxe résultat si su ñu nee communauté rurale de Diender nombre de votants deux mille ont obtenu le parti socialiste quatre mille cinq cent voix looloo fi amoon lu ko réglé dialogue ba tax na. présentation pièce d'identité c'est obligatoire en même temps que carte électeur d'ailleurs euh, carte CDA il faut ko ndax recto carte d'identité verso carte électeur jàlloo ko rek alors ba tax na kon euh, moo mujj jur loolu wax le code consensuel de 1992 te dem si yàlla si dirigé le comité de pilotage alors kon le président Macky Sall la de te ñun du ñu candidat euh, validé du ñu candidat recalé société civile la ñu bokk mu nous, ah, ñun mënu ñu am ci parce que nous sommes xébul ben xalat voilà kon nak dialogue tay bi deux phases mu ngi démarré tay ce lundi ci suba à 11h Dadiana, avec les candidats qui ont euh, répondu à son invitation et dont les dossiers sont validés à 12h Dadiana, na aux candidats recalés et qui ont répondu à son invitation dañu am ay ñaxtu ak ay euh, ay ay euh, ay alors tay nak

bokkuma ci recalé yi bokkuñu ci ñi ñuy validé am amul candidat mais on a participé à la à la au terme de référence avant ñuy ñëw wax de ko suñu xalaat xëy dina ci tenir compte modestement alors kon nag euh, li ñuy ñaan daal ci démocratie la ñu ne te dafa am le premier président de la république le Président de daan wax dafa depuis les temps très anciens les problèmes qui se posent à notre communauté ont toujours trouvé des solutions heureuses sous l'arbre à palabre parce qu'effectivement, effectivement bu assemblée nationale rek dara amatul wa euh, mag ñi dañ dan dajé sa taatu garabu buy ga wala statut taatu garabu bent ñi ba waxtaane problème penc mi léegi les choses se sont modernisées le chef de l'État état euh na ñëpp ñëw waye kenn amul droit mais du ma ñëw mais j'ai raison sur tout le monde yaay kan salaamaaleykum mbokk internet si Siweulko TV tay ñu ngi toog ak Carlou D Carlou D nuyu nañ la waaw fay nañ la mbokk. te ñu gis de sa teewaay fii nii tey lan moo nekkoon sa teewaay ci dialogue bi. ah waaw dañu invité dañu invité pour ñu ñëw teew ci woote njiitu réew bi dialogue bi moo waral suñu teewaay. artiste. waaw bon dañ fi ñëw déjà en tant que citoyen. Mhm. teew fi en tant qu'artiste bi tax tey jii njiitu réew di woote xelam dem ci. ñu anu mel hmm. ni hmm. oh, hmm. ah, man ñi oh, fi ci nekk tey am na loo taxawal ko booy woote effectivement dialogue ñu boole la ci da nga xam ne am nga cër ci réew mi rek am na cër boobu nag ñu koy ñëw sàmm teewaay bi bokk na ci li koy donc ñu ngi ñëw déglu njiitu mi lu muy wax ak ñu gis fi Gawla gis fi gis fi di ban message nga jox askan bi

ñu ñu joxe ci suñu xalaat mais mënuñoo wax dara tant que nit ñooñu waxul li nga xamante